Euh, dafa bëgg benn jeu bi nga xamante ne maanaam pour ñoom ñu mën a wàcc jaamono kii di Ousmane Sonko naka nga gisee loolu. waaw ñoom ñooy wax loolu waaye ñoom Khalifa Sall moom ak ak Karim moom bëgg nañ ko la waaja waxoon dañuy dem benn politique projet bi këpp seen kaw ñu ñëw ne bàyyi leen ki ci suuf ngi yëkkati ci kaw kii suuf ne xanaa dañ lay warul <laughs> dañ laa warul moo tax nga di ko wax. waaye ñi ñi ñuy administré xaw ma nan ñooñu ñoom eh, bëgg nañ tiit kuy sénégalais bëgg nga ko nañ leen baal loolu loolu loolu Karim eh, Macky Sall rafet na rafetlu naa ko parce que loolu moo gën a rafet waaw mu jàmmaarloo eh, ki nu mu tudd Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu waree doon président moo koy doon kenn mënu ko tee dem su ko doon doon du ko doon kenn mënu koo taxa doon yàlla moo moo ne yaa machara jinni wal insi in istatatum an tanfusoo min naqtaari samawaati wal ardi fanfusoo laa tanfusoo illaa bi sultaani su nit ak jinni daje woon bëgg laa may benn mbir te yàlla d'accordu ci doo ci jot suñ daje woon bëgg laa xañ benn mbir te yàlla ne da ci jot da ci jot moo tax jaru sonn boo seetloo euh, président Macky Sall muy jël réew mi foogoon nga ko xam nga yëpp yéen ñëpp ne ngeen kenn foog ko woon Ablaye Wade bi muy jël réew mi foog ngeen ko deuxième tour la dem keroog maa ngi mu ma mu fekk muy julliti sibaar muy dem deuxième tour journaliste bi laaj ko ne ko waaw yow euh, léegi loo ci xam mu ni ku am benn carte sax demal sànni ko benn carte rek bu ma ko rawee rek mën naa gañe réew mi far nekk mooy doon président gis nga yàlla ka muy génne kenn du ko foog dañuy ñaan nag waaye fa muy génnee ak ka muy génne kenn du ko foog moo tax jarul di mer jarul di xund jarul di def dara na def li mu war a def rek président nag moom loolu mu wax moom d'accord naa ci waaw ah, d'accord naa ci de. yàlla saa si biir boobu noonu. Mhm. maanaam kii di Khalifa Sall ak euh, Karim Wade leen toppee woon ne dañoo lekk alalu réew mi waaye bu leen amnistier maanaam tey bu ñu voté loi boobu noonu képp koo xamante ne peut jàpp nañ ne yow tam da lekkoon alalu réew mi dootuñ la toppee dara kon peut euh, moom tam day bokk ci loi boobu noonu moo tax affaire bi jur polémique ñi ñu naan da koy def ngir foofu ngir ngir maanaam tey euh, fagguwaale boppam pour keneen bu ñëwee du ko mën a topp loolu <laughs> dañ la waroon rek gis nga ñi war buñ leen bàyyee ñoom ñu sant yàlla. Khalifa Sall sonn na Karim Wade Karim Wade ñaata at nga xanaa fu sa bàyyi ne nga bëgg faa dem ñaata at ngi ñëwul senegal Sénégal Khalifa sàll ñaata at ngi ak élection yi fi am yëpp mënul bokk ci dara waaye kooku kay moom bëgg na ñu def ñu def ko def ko noonu waaye ki nga xam ne nag moom kenn waru ko kenn defu ko dara moom bu ko neexee ne bu nañ ko nañ ko nañ ko nañ indi polémique polémique fii polémique bi jaru ko jaru ko na leen baal na woote conseil des ministres bu ko mënee def tey sax le premier na ko def conseil des ministres mu woote ko ñu daje ñu waxtaan mu baal leen baalaale ñëpp mu jeex loolu wàññi dara parce que nag gis nga yaa yor doole ji lu garaaw la yàlla dafa garaaw da jox dooleem ba pare di la seetaan yàlla ku dangereux dooleem la lay jox ba pare di la seetaan ba xam na nooy def su fekkee da ngaa jël doole ji nag te ci yërëm jaami mu yërëm la man lam yarhamin naas lam yarhamullah yonent bi nee na ku yërëmul nit ñi yàlla du la yërëm kon nag loolu moom ñoom ñoom ñu war daal nangu nañ ñu bàyyi leen waaye ñi ñu warul ñoo ne ci kaw suuf rek naan xëcc leen fii ak du fii ak du faa fekk fépp foofu la conseil di ministres lay woote na ko woote su leen bàyyee mu bàyyi leen ñu set ak keneen ku ci bokk ñu bàyyi ñëpp jeex na waaye bëgg a kar nag xalaatu nit nag loolu dafa metti kër bëgg ni kar dafa métti bëgg ne woy lii muy def nangama tax lii muy def nangama tax lii muy def loolu dafa lay dafa li nga ñaaw njortu baaxul ijtaniboo kasiran mina zanni inna baada zanni ismun wala tajasasoo wala yaxtab baadukum baadan ay yuhibbu ahadukum an yakula lahma axi mayitan fa karihitumuhu yàlla ñaaw njortu boo koy def rek di topp ku ñaaw njortu du topp te boo toppee rek gis te boo gisee da nga wax te boo waxee lekk nga nit nee na loolu ba leen ko ñaaw njortu baaxul bu leen ñaaw yéen daal dee leen wax lu leen leer rek yéen waaye bu leen ñaw njort mukk président lii la ci jubloo président lii la ci jubloo président mu koy waaye daal ñi ñu war daal ñoom suñu sañoon ñu wàcc leen ñu war daal nañ leen wàcc ñi nga xam nag ñoom ñoo ne ci suuf di di tegg ñuy ware ah ñoom lu leen neex wax waaye loolu daal baax na xamul nu ko tubaab di waxee ne administration xam na ah na ngeen ko yóbbu nag ci TikTok bi maa leen gën a xam <laughs> loolu ah loolu baax ko defee ñu baal leen rek loolu man ne d'accord naa ci d'accord cent pour cent wala mille pour cent sax d'accord naa ci mu baal leen ñu dem ci terrain bi wuti ñoom ñëpp dañ dem moom eh, Ousmane Sonko Karim eh, ñoom ñett duñ nekk président kenn la kenn rek lay doon suñ demee wuuti xanaa waaw léegi opposition suñ suñ suñ suñ suñu bañee kenn ànd ñoom ñëpp xanaa kon ñoom ñu ñoom ñu ñoom ñooñu ànd buñ gañee kenn war na war na war nañoo mën a taxaw noonu su kenn gañee war nañoo mën a taxaw ci wetam jàppale ko ah bu fekkee opposition laa wax nag bu dëggu bu kenn gañee ña ca des war nañ ko mën a jàppale waaye buñ demee ba nag ñoom ne ñuy xëccoo ah kon jaratu ko ah jaratu ko opposition daal moom day day dañuy ànd eh, xeex kenn ku ñuy xeex nag. bu daanoo ku toog rek ñu jàppale la ok loolu mooy opposition waaye opposition boo xam ne eh, dañ naan wéy dañoo bëgg a xeex Karim Wade wala dañoo bëgg a xeex Khalifa Sall ba dañoo bëgg a xeex Ousmane Sonko moo tax ñuy def nii def Macky Sall mënul falke yàlla muy fale allahuma malikal mulk tuutin mulk man tasha wa tansewul mulk man tasha nee na maa moom nguur maa ko moom maa koy jox ku ma neex ku ma waxul ki leen neex ki leen neex waxu ko de ki ma neex bu ko doon jox ki ñu neex konoon Ousmane Tanor a koy jël wala Niass ñoo nekkoon ci kaw affaire bi waaye xooleen ñoom ñëpp la bale jox ko Macky jox ki ñu neex kon Ablaye Wade du ko jël waaye ñëpp la bale jox ko Ablaye Wade bu doon jox ko nuy neex Abdou Diouf ndesit la am Senghor dafa desal jox ko mu wéyal des ba mu jeexalee mu ñaanaat ñu may ko loolu àdduna adduna da ngay demee xel ngeen bàyyi deme deme deme deme deme ñaaw njort ak xalaat yenn boo xam ne génnul sa néeg <laughs> doo ko xalaat xalaat dafay sori waaw dafay sori. président Macky bi dal ci ñoom àtte ak moom moo taxawaat pare ngir bàyyiwaat leen est-ce que kon demoo demee woon na xel bi muy dugg ci procès Khalifa Sall en même temps procès Karim Wade